Ngam Njaay Sidi Sembène final lese bi Sidi Sembène nga jàkkaar lool El Hadj Biram Njaay daw na jëli ko Sidi Sembène jàpp na El Hadj Biram Njaay Sidi Sembène mbokk yi ñu ngi ci final raw gàddu El Hadj Biram Njaay Sidi Sembène El Hadj Birame Ndiaye bala woon ginnaaw Sidy Dieng la jàkkaarlool mbokk yi loolu mooy final raw gàddu bi El Hadj Birame Ndiaye Sidy Dieng ndeysaan Doudou Sané ngi noonu di doxali ndeysaan final raw gàddu bi El Hadj Birame Ndiaye Sidy Dieng ko Gris Bordeaux sol na ko mbot yegg na suuf daan na ko Sidi Sembène daan na la Birame Ndiaye jël bu rëy Sidi Sembène Sidi Sembène jël na raw gàdd bi Sidi Sembène jël na raw gàdd bi oh El Hadj Birame Ndiaye daa am na jël bu ko bett lamba gi waaw waaw